lik mbokk yi waxtu yi nga xam ne ci la ñuy baaxoo di tàmbali xabaar yi nag tegal na lu tolloog juróom-benn minute ñu ngi jéggula ci li nga xam ne ni moo doon yéexte googu ñu ci am li ci gën a fes ci xabaar yi jàpp nañ ci ndaj mi nga xam ne ni moom la njiité réew mi doon amal kilifa yi nga xam ne itam ñoo jiite yenn këru liggéeykat yi euh, doon itam ay njaatige doon ñoo xam itam dañoo sos seeni kër liggéey kat am ay ñu ñu jàppale ci wàllu liggéey bi ñoom nag ñoo doon dajeek njiitu réew ngir xool itam nan lañu ñu mën a lëngoo ci ab liggéey ba li nga xam ne nii moom la ñu bokk ñu mën xool nan lañ ci gën mën a yéwal ne incha allah indi ay leeral leneen loo xam ne ni itam dinañu ci indi ay leeral mu di waxtaan woo xam ne ni dañ koo jagleel li jëm ci wàllu suuf ci université bi nga xam ne nii moo ci euh, kon euh, ci wàllu waxtaan ak diisoo xool wàllu mbay mi itam euh, xool lan moo ci doon jafe-jafe yi rawatina ak coppite yi am ci jaww ji ngir ñu mën a xool nan la ñuy gën a mën a dëgëral la taxawaay gën a wëlbati ko itam laab ji nga mën a ak jamono ba li doon coppite yi bañ a mën ci wàllu suuf wàllu suuf si itam dinañ ci waxtaan ba tey ndax ay boroomi xam-xam ñoo daje ci université bi nga xam ne moo nekk ca kees yi dippee ko professeur yi ba dee ci am amal fa ñaari fan yoo xam ne nii dañ koo jagleel lépp lu jëm ci wàllu suuf si foofee ak nañ ciy xalaat ak nañ ciy diisoo ak nañ ciy sottante xalaat ba lii doon itam yenn coow yi ciy am ak yenn lëj yi ciy jinne meeku loolu ba munte dañ ba jeex tàkk itam mën a wàññeeku lool ni ko waxee ci njëlbeenu xabaar yi njiitu réew mi doon na daje ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jiite yenn këru liggéeyukaay yi ñu nekk itam ay njaatige sos seen itam seen entreprise bi maanaam seeni këru liggéeyukaay di am itam ñoo xam ne itam ñooñu fay liggéeyloo ñoo am itam loo xam ne ni taxawaay bu ñu am la ci doxalin réew mi taxawaay bu ñu am itam ci lëngoo gi ñu war a ak réew mi ak réew ki nga xam ne itam kilifa ak réew mi moo waraloon ñu sol seen daal demoon seeti njiitu mi ñoom waa secteur privé kenn ci ñoom nag di béy di aañ am na kàddu yu tukkee ca waxtaan wa ñu teewlu ko ñuy wax secteur privé nga xam ne ñoo yore koom-koom bi dëkk bi ñew président de la république invité ñu woon tay fi ñi koy rafetlu trop ndax li mu def tay wone na te ak discours am muy wax yépp bi mu togué ba légui secteur privé lay wax manam lolu ñun ñep ñukoy rafetlu am ci kontante bu reuy am ci aussi yaakaar bu reuy ndax li muy woote ak li mu ñuy wax ci secteur privé dafa fekk ni kat ñun loolu la ñu doon wax tout le temps maanaam naka la ñuy yi nga xam ne ñooy sénégalais yi nekk fii naka la ñuy doolelee pour ñu mën régler problème mu jeunesse bi ak bi naka la ñuy mën a doolelee pour ñu mën agir si li ñuy wax euh, dund bi loolu yëpp kat ñun ñëpp ñu ànd ànd nekk benn ne kat président ñoo ngi rafetlu li nga wax ñi nit ñoo ngi dinañuy dajalewu boole suñu d'olé pour apporter des réponses ci question yooyu ñu wax maanaam naka lay xale yi amee liggéey ñu taxaw ci nga xam ne suñu wàll la aussi naka la ñuy jëm a wàccee prix yi ci dëkk bi suñu wàll la ñu taxaw ci naka la ñuy ci formation yi nga xam ne xale nañ ko pour ñu am capacité ñu ne ñu taxaw ni kat loolu dinañ ci taxaw maanaam dem nañu benn kat même mbirum affaire impôt am na solo aussi ci dëkk li ñuy doon yàgg di wax ñun nañ ko yaatal mu bañ a nekk ñenn rek ñëpp fay tuuti comme ça état bi dooleem ëpp doole pour mën a régler question yi mu wax donc daal dëgg-dëgg ñoo ngi rafetlu trop réunion bi ñu am tey ak président de la république premier ministre fekke ko ñoom ministre des finances ak ministre de l'économie taxaw dëgg-dëgg ñi kontaan si trop ñu ne kat ñun suñu bopp suñu jógee fi dinañu jël wax ji tas ko yóbbu ko suñu ay organisation pour ñëpp taxaw pour que ñi ñu fàcc li nga xam ne eh, mooy yaakaar bi ñuy am si gouvernement bu bi muy yaakaar boo xam ne aussi dañ koy am si ñi nga xam ne ñoo yore koom-koom bi di gërëm aussi ñi ñi àndal ñëpp suma naataango yi nga xam ne secteur privé ñu ñëpp ñoo ko bokk eh, lépp ñu ñëw taxaw ku nekk mën na na taxaw waxal secteur privé bi yëpp bon ñu ne nañ ci del wax bi mi wax bi benn la ñu koy rafet lu ma leen di gërëm di leen di dellu njukkal loolu doon kàddu yoo xam ne ngi tukkee ci béy di ay ñu nekk kenn ci njaatige yi nga xam ne ñoo jiite këru liggéeyukaay yi euh, jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dënk lépp lu jëm ci wàllu mbéy mi sol na dàllam dem ci boor yi nga xam ne moo doon ci ñaay bi xool li nga xam ne ni moo doon itam tolluwaayu tool yi rawatina toolu dër ya fa nekk moom nag am na lu mu xalaat ci li nga xam ne moo doon yenn doxalin yi bi ngir itam mën a am ay lujum yu doy ak sutu yu doy fokk ñu am loo xam itam moo la ñuy gën a dooleel ñuy yëngut ci wàllu woowu ñu teewlu ci benn mbow Sénégal fas yéene amal li nga xam ne rek mooy ay coopérative agricole communale ñu fa yéene ko samp ci 547 communes yi nekk ci biir Sénégal gi yëpp loolee nag fas yéene dugal seen loxo bu baax ci wàllu souveraineté alimentaire ñu jaxale ko ci wàllu mbay mi ak li nga xam ne rek mooy mbayum dër li ñu bëgg rek mooy def fa ay ndaw ak ay jigéen ngir rek lii di autosuffisance ñu amal ko ba li ñuy jégaane ci bitim réew toll ci 66 milliards ñu mën ko bàyyi. partenaires yu mel nii suñu leen amoon suñ ci amoon fukk ñu nekk locomotive yi commune bu nek ñu dem jël fa 200 hectares té xolal fi nu mu comparé à 200 hectares vous imaginez ce qu'on peut faire sur 200 hectares Les 200 hectares bu nek nga def ko ben hectare ben hectare ben hectare def ko ben serre bu melni nii former xalé yi ba nga xam ni kenn importer des fruit kenn do importer des légume donc loolu da fay tax non seulement dañuy créer emploi mais euh, mais mais day tax ak xalé yi agriculture bi neex leen donc dal rafetlu naa ne suñu togué waxtan pexe mën naa am. te su pexee am ba ngeen stratégie bu leer njort naa ne ministère des finances dinañ ñu déglu. ministère de l'économie dinañ ñu déglu gouvernement bi dinañ ñu déglu premier ministre bi dina ci jàpp son excellence le président de la république dina ci jàpp. bu ñu am jéego ci kanam il faut ñu former xale il faut ñu motiver leen il faut ñu wan leen ni njëriñ a ngi ci. njëriñ lu wax dëgg yalla lu lu la nak parce que luñu mënu luñu fogul sax luñu fogul té mënu ñu ko xam li fekk dugguñu ci. lu ñu foogul mi ngi ci mbay mi mais il faut ñu dugg ci pour xam. vision bi nguur gi amal ñii rek di ndaw ñi ak jigéen ñi fekk foofale euh, ca village bu Kira ñu fay amal mbay bu mucc ayib ñoom daal nee na ñu ngi ci ànd bu baax ak ñi xam ne rek mooy ministre dénk wàllu mbay mi ak euh, càmm gi. waa njëriñ bi béy bi am si ndaw yi ñun ki ren gis nañ ko ndaxte at bu jot dañuy béy buñ gisee ku ñu jàppale ki buñ gisul ku ñu jàppale it dañuy béy kon gis njëriñu mbey mi moo tax ñuy béy buñ gisee ku ñuy jàppale buñ ko gis yëpp moo tax ñuy bay kon moo lay won ni am na njëriñ. bu ñu jàppalee baykat yi waxuma la bitim réew bitim meneen bitim réew sax mën na cee dund ndax Sénégal xamuñu lu dul bay jigéen ñaa ngi bay góor ñaa ngi bay ndaw yaa ngi bay feneen foo xam ne rek moom jëwriñ ji ak délégation dem nañ fa muy euh, fële ci commune Kër Moussa foofee nag ñu fekk fa ab agro businessman bu euh, takku tuddee ko Maguette Niang moomee daal daal ànd ak ay ndawam ak ay euh, jigéen nee nañ daal lii xam ne nguur gi bëgg nañ ko ñoom it dañ ci ànd ak moom ngir rek mbay mi jëm ca kanam. ñun ñëw ñu waa Europe. Mhm. ñu fiy liggéey di daan suñu doole. ñun nag li lay ñaan te di ko dagaan te loolu dañ la koy ñaan ginnaaw yàlla nga jàppale ñu. ñu des ci di fi liggéey. beneen pàcc boo xam ne daal am na solo bu baax ci wàllu mbay mi muy mécanisation ku ne mécanisation nag tudd ay tracteur ay magasin de stockage ak ay magasin de distribution loolee mu nekk ab défi bu am solo loo xam ne rek nguur gi ñoom ñoo ko bëgg amal ngir mbay mi daal mucc ayipa gouvernement du Sénégal avec ses partenaires Intermac et aussi avec les partenaires financiers internationaux. euh, euh mobilisé nañu 85 milliards de francs CFA pour indi 400 tracteurs de 80 chevaux, 241 tracteurs de 100 chevaux, 120 tracteurs de 120 chevaux, 20 euh, hangars yo frigo stockage donc ce qui est li nga xam ne nii digg nañ ko askan wi ne dañuy moderniser ak agriculture bi dañuy booster souveraineté alimentaire ñoo ngi ci tànk yi. moom jëwriñ ji di ba Diagne moom nee na daal li nga xam ne gis na ko ci terrain bi daal lu rafet la te bëgg na mu nekk ay modèle ngir Sénégal mën a moom boppam ci anam yu gaaw jëm ci wàllu souveraineté alimentaire. jërëjëf Penda Mbow daara ji nga xam ne nii moom la ñu dippee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak itam daara ju kaw yi nga xam ne moo doon université Assane Seck te itam mu nekk si Ziguinchor ñoom ñaari daara yi dañoo am yéene lëngoo ngir itam wecco ay àlluwa di xool itam la nga xam ne nii moo doon njàngale mi nañuy gën a mën a itam indee ak xam ne moo doon ak jàppale ak taxawooti ci seen biir loolu nag doon na itte joo xam ne kilifa yi jëmmal nañ ko ñu teewli ci Lamine Touré li nga xam ne moo soxal ak sa Ziguinchor Touba mu ngi wéy di dëgër li ko firndeel moo di accord de partenariat bi nga xam ne ñaari université yi xaatim nañ ko moo di université Assane bu Ziguinchor ak université Cheikh Amadoul Khadim bu Touba moo di kon lu am solo ci dara mu mi. ñaari fànn yu am solo la fànn mu njëkk bi mooy lépp mooy jàngale gëstu ak administration beneen fànn mooy.

Euh, aménagement yo xamni ni bëggon nañ ci partager seen expérience ak waa Touba. li nga xam ne moo soxal li di service à la communauté maanaam euh, fexe ba askan wi gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moo di enseignement euh, supérieur doon na taxawaay bu am solo boo xam ne université bu Touba am na ko ba tax na li nga xam ne moo di université bu Assane Seck bëgg ci jëlee li nga xam ne moo di xam-xam ci wàllum li di montage financier ak orientation. formation bi nga xam ne université bi am ko ci wàllu mbay. loo xam ne dugg na ci domaine agriculture xeetu mbay xam-xam yi ci aju euh, bëgg nañ am benn euh, collaboration ak université bu Touba collaboration boo xam day doon loo xam dañuy ñëw jàng si ñoom bu fekkee am na loo xam ne aussi mun nañ ko def muy suñu participation pour gën a ñoŋal li nga xam ne expérience yi ñuy def fii la aussi ñu andi si ab euh, suñu suñu suñu contribution bokk na ci aussi lépp lu xeetoo ci xam-xam yi jëm ci banaam nu ñuy xayma dëkk yi ni ñuy màggee ak euh, xam-xam yi aju ci li ñuy wax planification urbaine maanaam lépp loo xam ne xeetu xarale la boo xam ne mun nañ ko teg ci loxo autorité yi nga xam ne ñoom ñooy saytu dëkk bi na muy màggee pour mun di anticiper euh, ci problème yi loolu mën a jur bokk na ci lépp loo xam ne aussi mun na fexe ba euh, énergie solaire maanaam lépp loo xam ne xeetu xarañ la euh, comment di jumtukaay bu jógee ci jant bi ñu def ko ba mu ñoŋ ba nga xam ne dina wàcc wàcce facture énergétique bi nekk ci université bi ba ci dëkk Touba. coopération bi am na solo. li muy firndeel rek moo di université yi dañoo bëgg génn li nga xam ne moo di logique classique bi nga xam ne moo yàgg euh, tënk li nga xam ne moo di mu kawe mi fii ci Sénégal la. jërëjëf Lamine ba tey ci wàllu gëstu yi saxal daara yu kaw yooyu ci la ñuy des ndax am na lu tolloog juróom-ñaar fukki boromi xam-xam yi ki kàngam yoo xam ne nii dañoo daje ñoom itam ñu doon juróom-ñaar fukki yoo xam ne réew yi ñu jógee bokkul ñu daje nag la doon seen bëgg ak seen xememteef mooy fexe ba gëstu ba ñuy def ñu mën di ci laabirante ba gën itam xam ne xel yam itam foofee la xel tàmbalee loolu nag bañ ko xamee moo waral ñu gën a mottali seen yéene jooju ñu teewlu ci Seydina Aline Fall projet QADOC nekk projet boo xamante ne li ci jublu moo di fexe ba gën a dooleel lii di enseignement supérieur recherche universitaire ci nag yenn ci dëkk yu nekk fii ci Afrique lancement bi nag ñu amale ko ci Dakar ci diirub ñaari fan ñi nga xamante ne ñoo di ay universitaires chercheurs ak partenaires ñoom ñëpp daje woon ngir waxtaani ko projet bi. Eh, ñi ko tëgg ay partenaires yeen lañ liggéey ci li ñuy wax école doctorale xam nga booy wax école doctorale mooy njobbaxtanu euh, lépp luy jàng ci suñu réew yi université dafa am licence am master am doctorat maintenant doctorat bi mooy diplôme lijaase bi nga xam ne moo mujj euh, moo gën a kawe te boobu base bi recherche la kuy wax doctorat gëstu ngay wax euh, képp kuy wax gëstu nag xam na ne benn réew mënul développer développer wu te gëstu amut moo tax projet bii nga xam ne day seet lu baax ci eh, école doctorale yi lu baax ci recherche suñu réew yi xool nu ñu koy ñoŋale yokk ko foog naa projet bu am solo la lu ëpp juróom-ñaari fukk participants yu jóge ci juróom-ñaari nationalité euh, ñoom nag teewoon nañ ndaje mi ci présentiel ak i tamit en ligne mu nekk ndaje moo xamante ne nii ANAQ-Sup ak ak OBREAL ñoom ñoo ko sabab. Euh, njariñu projet bi mooy booloo boole réew yooyu ba nga xam ne ni ñuy euh, gëstoo école doctorale ak recherche bi ni ñu koy natte benn lay doon. réew mu nekk am na nattukaayam mais dañoo nar a boole suñuy moyen boole suñu xam-xam pour am ay outils yu ñu koy natte parce que outils yi dafa am te uti yooyu dañ ko war reconnaître au niveau international. Sénégal Guinée ak République démocratique Congo di ñett dëkk yi nga xamante ne nii moom la projet QADOC bi dal di nag ciblé euh, boole ci ñi nga xamante ne ñoo di ministère enseignement supérieur yi ak i tamit agence nationale assurance qualité yi ak ñaari université ci dëkk bu nekk. jërëjëf Seydina ñu indi ak leeral kon lu tollook juróom-ñaari euh, do nit ñoo xam ne ni itam bokkuñu fa ñu jóge la bi maanaam ay nationalité bokkuñu itam fa nga xam ne itam moo doon réew ma ñu jóge euh, loolu ba tey ci wàllu xabaar mu soxal wàllu gëstu euh, dira daara ji nga xam ne moo nekk ca kees mu nekk itam daara ji ñu dippee professeur Iba Der Thiam ñoom itam ay boromi xam-xam ñoo fa daje ngir xool wàllu suuf am ñaari fan yoo xam ne dañ koo lëlu tëju ko ngir waxtaan ak càmbar li doon ay jafe ci wàllu suuf ak xool itam nan la ñu gën a mën a yéewale nan nga koy téye ba mën cee jariñu ñu teewle ci fatumata Banel Ba ci jamono ji nga xamante ni bii coowal suuf fu ne lay jib fii ci Sénégal mel na ni war nañ ci def ab taxaw sedd bu am solo rawatina fii ci diwaan bu Thiès nga xamante ni bii jamono ji nag projet ak programme yu bëri fii lañ koy amalee loolu moo waral nag université Iba Der Thiam bu Thiès taxaw ngir waxtaane sujet bu am solo boobu naka la ñuy def nag ba coowal suuf dootul jibati wala sax ba ku nekk xam fan nga war a mën a taxaw ci wàllu woowu loolu moo leen yëkkati. ñu daje tey ak ay experts yu jógee Sénégal ak bitim réew yu jógee ci yeneen université yi ñu dajaloo fii tey pour waxtaanee mbirum suuf mbirum suuf nag ku ko wax rek sa xel day dem ci lënt-lënt ak lëcc-lëcc ci am donc tey li ñuy waxtaanee mooy nu ñuy def ba lënt-lënt yooyu ñu moytu ko nu ñuy def ba du am mais li muy tàmbalee mooy xam-xam maanaam il faut ñu weccante xam-xam weccante ay xalaat dimbale nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo war saytu suuf bi muy collectivité yi ñu xool ñu wan leen nan la ñuy def ba sàmm seen suuf. Université Iba caam Thiam nag ci liggéey bi mu amal am na ay projet de recherche yu am solo yoo xamante ni bii ay partenaires yu ci mel ni coopération allemande ci projet bi ñuy woowee seen suuf ñoo ko ci jàppale mu di liggéey bu am solo boo xamante ni bii liggéey nañ ko ànd ci itam ak collectivité locale yi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan bi yépp jafe-jafe yi li ci bari mooy Sénégal dafa am lu ñuy wax domaine immatriculé ak domaine non immatriculé problème yu bari nag mooy da ngay jël lu nekkul ci domaine immatriculé yóbbu ko ci domaine lu ci lu nekkoon ci domaine non immatriculé nga yóbbu ko ci domaine immatriculé en général fa la problème yi di tàmbale ndax fa ngay gis ku naan la fii sama suufu maam la woon ki naan la déet sama fii laa doon sàmm ki naan la sama toolu baay la woon et cetera donc loolu bu fekkente ni communes yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk suuf bi ñu immatriculé wul ñoom ñoo koy tàmbali bu fekkente ne xamuñu ñi ñu dëkkal ñëpp ku nekk sa tool fan la ne ak fan la yem bés bu ñuy délibéré ci suuf bi day andi à chaque fois ay ba tey ci wàllum foncière maanaam lépp lu jëm ci wàllum suuf université Iba Der Thiam joué na ci bu am solo ci wàllum tàggat ndaxte formé na fi ay ndaw ñu bëri yoo xamante ne bii ci secteur boobu la ñuy yëngu ginnaaw bu ñu génnee ci réflexion yi nag lépp luñ fi tënk dinañ ko jël jëbal ko ñi nga xamante ni bii ñoo yor wàllu nguur gi waaye itam population bi nekk fii ci cees pour ñu am li nga xamante ni bii loolu la ñuy woowee développement durable jërëjëf Fatoumata ba tey ci wàllu xabaar euh, dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax Ngànno tey itam mu nekk ca boori Fuuta mooy dëkk bi nga xam ne nii fii la capitaine gaynde yi di Kalidou Koulibaly cosaanoo moom nag dafa am liggéey boo xam ne da ko faa sémb ci wàllu kër docteur itam ngir mën a indi ak yëwanal ci wàllu paj mi Ibrahima Papi Diédhiou sol na dàllam xool itam liggéey boobee fan la toll ñu teewlu ko. barab fajukaay boobu moo nekk nii booy dugg si dëkk bi sax nga seen ko ginnaaw bi ñu defee pose première pierre bi. liggéey bi mu ngi wéy bu baax a baax ci biir sax nemmeeku nañ avancement bu am solo lool boo fa duggee sax nga xam ni koppar bu takku lañ fa dugal fondement bii sax moom kese toll na daanaka ñetti meetar. maa hokkoon bila. ci chantier bi nag man maa yore lépp lu jëm ci mbirum suuf fim mu nekk ni nag sotti nañ fi suuf su bari li ma xayma daal war na toll ci téeméer ak ñaar fukki camion chargement bu nekk juróom benn junni la fondement bi rek dafa seer lol yokk ci nag li nga xam moom mooy clôture bi li ma xam daal mooy dépensé nañ ci lu bari. ñu waɗi hen trois millions huit cent. te ci tamit dañu war fay yi. ndaw yu bari yu ci dëkk bi liggéey ci liggéey chef de chantier bi moom moo ko yore waaye dafa tukki moom su fi nekkoon dina ci taxawaay Kalidou Koulibaly ak frère mi diwan bi yëpp mu ngi koy rafetlu jàpp ni dina amal jering bu kabah a baax. Kalidou dafa def li pour social pour région département de Kanel wala région de Matam yëpp jëriñ ci affaire bi. waaye am nañu fi poste santé comme am nañu fi lu problème lu bëri parce que comme ça kii lu mu wax le problème écho fekkee da ngay def écho da ngay dem ba Matam wala nawet na li nga pour euh, transport da ngay sonn. waaw Malag tamit urgence euh, euh, la même chose. du nganu de diwaan bi yëpp lay jàppale quoi. pour diwaan wata askan wi nag yàkkamti nañ bërëbu fajukaay bi tàmbali ndax dañoo sonoon lool waaye incha allah mbir mi ci nettali lekk lay mujj. wala sama mbaɗa vacuer kanil walla matam Kalidou Koulibaly du fii la tàmbale di def ci wàllum social laata dëkkam bi jàppale na hôpital bu Rosso gi ci wàllum ambulance nee na du fa yem bébétoom mooy fexe ba taxaw askan Sénégal ngir mu jàppal leen nu mu waree. jërëjëf euh, ki nga xam ne moo di Ibrahima Pape Diédhiou ba tey ci wàllu xabaar euh, fi nga xam ne nii itam moo di njëwriñ ji ñu lépp lu jëm ci wàllu alam bi dañoo amoon ndaje moo xam ne la ko taxoon a jóg moo di saytu. daanaka lii nga xam ne moo di coppite yi am ci jaww ji ak la muy jur itam ci ay njeexital ci wàllu mbay mi ci wàllu suuf si ak li nga xam ne nii moo doon itam taxawaay bi ci béykat yi war a am loolee nag ay kàngam ñoo daje woon doon ci xalaat ngir gën ci laabire ñay bay ak ñay yëngut ci wàllu woowu professeur Daouda euh, Ngom mi nga xam ne nii moo di jëw jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu alam bi indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. conférence la boo xam ne nii nag dañ koy euh, bi mooy ñeenteel bi yoon dañ koy organiser ci benn thématique mooy li ñuy wax intensification durable nan la ñuy def ba gën a suqali li ñuy def lu demee ni mbéy te bañ a yàq àll bi njanaaw gi ak gàncax gi ak suuf si euh, loolu nag li tax mu am solo ci ñun mooy ministère de l'environnement et de la transition écologique ci ñaari at ci ginnaaw dañ ko yokkal benn mission boo xam ne dafa am solo mooy li ñuy wax transition écologique

ñeneen ñi SIRAD ñenn ñi dans les universités UCAD UGB ak yeneen yi ak yeneen organisation yu demee ni ay IPAR ay DITAES ak les les les les praticiens ñi nga xam ne ñu ngi koy pratiquer ak ñi nga xam ne ni ay producteurs lañ ñoo tase pour waxtaan ci loolu yëpp xool nu ñuy gën a ñoŋale mi te du ñu yàq alam bi du ñu yàq njanaaw gi du ñu yàq jaww ji. kon loolu doon ndaje moo xam ne nii la ko taxaw na jëkk moo di gën a méngale xam-xami mbay mi ak li nga xam itam moo doon ñu yore wàllu càkkif ki ci wàllu xabaar ba tey ñi ngi ko doon junju kii mi ngi tudd Cheikhouna bu dembale moom nag mu nga dëkkee ca Tambacounda xam mu dafa màcc lool ci wàllu defar ay netaal itam ak itam di def ay photo ak di def ay peinture ci wàllu mur bi mu nekk loo xam ne itam xam-xam bu euh, dëppoo ak jamono la ñi nga xam itam ñoo yëngat ci wàllu cosaan ak aada itam rafetlu ko lool mel na ni Thioro Dieng nag loolu gis na ko ba demoon seeti la muy liggéey ba di ñu ko dégtal. ginnaaw bi mu demee ci diwaan yu bari ci Sénégal taaral ko Cheikhna Sadibou Dembélé alias Xob dellu si na fii ci diwaanu Tambacounda di fi mu juddoo fii muy continuer di defar ay nataal waaye itam di rafetal mbedd bi ci lii ñuy duppee graffiti moom mi ci peinture bi muy yëngatu da ciy defar ay mbir yu am solo looloo tax mu dellu si si Tambacounda ngir gën a taaral ak gën a jekkal yenn ci yoon yi nekk ci diwaanu Tambacounda rawatina ci commune bi. ma nekk doomu Tamba tey nag euh, ma nekk si mbedd Tambacounda di def euh, ay nataal di def ay dessin.

kon tey nataal ma nekk di représenté ci mur yi ci loolu lay wax. mi ngi sensibiliser di taaralaat dëkk bi soppi xar kanam bi moom mii nee na bokk na ci li nga xamante ni da koy inspiré lépp lu nga xamante ni rek dund na ko waaye itam da koy faral di gis ci ndawam fii ci région bu Tambacounda. donc tey foro bi sax boo xoolee mun na mu euh, buñ ci defee lu ci war yëpp ak Tamba nu mu tàngee nii mun na doon benn làkk sax. Nous lac bo xamanteni ñu am comme affaire yu ñu xamanteni ah, dañ koy Venise xam nit ñi dañ fay dem fexlu ah am na fa am restaurant nañ ko mu mu luxe quoi euh, puisque foro bi dafa lié trop trop trop ak suñu histoire euh, déjà turu foro bi ngi tudd mama rabu bi xam nañ ko donc euh, moom laa la fe tey ci moom laa gën a ci représentation yuma def ci mur bi. li di ay peinture ay natal ay dessin mu koy def ci mur yi nga xamni ño nek fi ci diwaanu tambakunda ñi nga xamni ne romb ak dekk ci dekk bi rafetlu nañ ko bu baax ñom sax ñi ngi ñaan ñu jàppale bu baax ñi nga xamanteni ñoy ñooy artistes yi nek ci dekk bi te diko ñaan ñi nga xamni ñoy collectivité territoriale yi. franchement dama kontaan kontaan franchement dama kontaan parce que rafet la parce que li tay jii bo génn côté plateau ñëw dugg fi Tamba franchement lu ngay njëkk impressionné ma voilà euh, image yi relaté déjà au niveau des fresques là donc li moom refait rafet et dañ ko vraiment félicité de encouragé pour au moins inciter un jeune pour ñu dugg ci arbitre. et il au moins les le maire de la commune de Tambacounda le président du conseil départemental pour ñu gën a jàpp euh, artistes parce que Tamba dafa bëri ay artistes amna ay artistes nga xamante ñom ils seront du du du du c'est important pour accompagner voilà les politiques de jeunesse par conséquent il faut réellement que les collectivités ñu accompagner jeunes yooyu. avant may rombu sax dama ko gis ci ci réseaux sociaux yi bima ko gisee ci la né waaw affaire yi mom nice na par la suite né la warona a mané sama frère bi nañ jaaree ni ma gëna xol affaire yi ni mu mel mais bima ñëw aussi. ni ma ko gisee woon rek daf ko gën a dafa dafa dàq sax ni ma ko gisee woon waaw carrément aussi war na mën a continuer sax parce que dafa dafa gën a leeral dëkk bi au fait daa tax affaire yi gën a leeral. ginnaaw Matam Cap Skirring ak fii ci commune Tambacounda Cheikhouna Dembélé mi ngi wéyal liggéeyam fi nga xamante ne nag fa la jox bopp mooy quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan ci commune bu Tambacounda bi la yoon. jërëjëf Thioro kon ñuy ndokkeel Cheikhouna Sadibou Dembélé boobu ci manoore googu mu am ngir taaral dëkk boobu di Tambacounda. Euh, Oumou Kalsoum Sall dafa dellu si ci li mu doon gëstu bi mu doon amal ci ñam ñuy jëfandikoo ndax ñi nga xam ne itam noonu nañ ko war a saytoo xool ndax la ca nekk ci wàllu ak cet la ca nekk ci wàllu xay la ca nekk ci wàllu sell dëppoo na ak yoon waaw mbala déet am na ay kuréel yoo xam ne dañ leen samp te lam la tax ñu samp leen dara la doonul seen yitte lu loolu ñoom la Oumou Sall demoon seeti ñu teewlu ko. produits yi nga xamné ni euh, dañ koy jëfëndi ko ci walu lek yi nga xamné ni yépp ñoo ngi ci marché bi faaw rek mu am ab autorisation. dispositif bu pertinent leen fi teg en place tous produits bu ñu importé dafa am balaa ngay dugg ci ma kii balaa ngay fay douane da nga am lu naan départ ti départ balaa ngay am faaw ñu jëf yóbbu échantillon ñu yob analyser ko bu dee produit bu ñu defaree ci biir dëkk bi balaa nga kay mën a dugg ci marché da nga ñu lu naan fra autorisation boobu da def analyse yéen analyse ñu pare balaa ñu jox fara donc ci wàll lekk ñoo saytu lépp lu ñuy importer ñu ngi saytu lu ñuy ci dëkk bi te ñu rek tey nañ dispositif xam ne ni ñaan gën a dalal seen xam ne lépp lu ñuy dugal fii ñu ci na xëy na am mais képp ku jaar ci yoon yoon yi dispositif boobu mu ngi fay ne mu tax na lii wàllu boobu wàllu lekk naan moom macha allah ñu ci góorgóorlu ngir produit bi am ko faw mu jaar euh, ci laboratoire de contrôle bi nga xam ne ni dafa jokku ci ministère du commerce. laboratoire bi moom liggéeyam surtout mooy jàppale ministère du commerce plus précisément direction commerce intérieur pour mu mën a ni produit bi kat baax na mun nañ ko bàyyi ci marché bi wala mun nañ ko jox. certificat pour mu mun ko jaay si marché bi comme les produits ko céréales yeeg yooyu ak yeneen produit yu ñuy defaree fii comme aussi produit bu ñu jëlee à l'extérieur bëgg ko indi fii tam dañuy laaj DIPA ñoom dañuy laajte DIPA ñu dañuy indi produit bi ñu tam ñu analyser ko pour wax ne ah produit bi baax na mun nañ ko bàyyi mu génn nekk si marché bi ñoom tam de temps en temps dañuy dem tam si yenn si marché bi pour def ay prélèvement pour faire le contrôle du que produit bu ñu ko xasee ba jox Fra duñ ko bàyyi noonu ñoom dañuy mm. jékki-jékki dem si bi xool ba xam na produit ba tey mën nañ ko bàyyi si marché bi wala jët file nag bu ñuy def analyse yi dafa am rek fu ñuy euh, sukkandiku. produit boo koy xool ni baax na wala bon na am na foo ko war a teg. Mhm. te loolu nga koy teg rek mooy norme. Mhm. léegi ñun fii au niveau du Sénégal on a l'ASN l'association sénégalaise normalisation. Mhm. moom mooy génne lépp luy norme. léegi rek ñu si valeur am yooyu bu ñu analyser ba pare ba am suñuy valeur suñuy valeur yooyu dañ koy jël. xool ko moom ak valeur am ASN valeur yi mu joxe ba xam lii am ñun ak les méngoo na. yooyee norme nag ñi ko fi euh, saytu muy association sénégalaise normalisation. ASN nag taxawaayam mooy euh, euh, càmbar tabax lépp loo xam ne ay norme la muy ay ay kayit yoo xam ne fala la ñuy xaatim lépp lu soxal. Euh, produit booy jëfandikoo muy lekk muy muy produit tabax muy beneen produit bu ñuy jëfandikoo ci Sénégal euh, nan la war a mel euh, ba def luñ koy doyee du lor doomu aadama yi du lor du lor gàncax bi loolu ci biir normi yi lañ koy dugal donc document yooyu nag buñ koy def du ne rek ASN ñun ñooy ju fii bind ko dañ koy war a def de manière consensuelle maanaam ci déggoo boo xam ne ñëpp ñi nga xam ne produit bi ñuy liggéey wala secteur bi ñuy liggéey def leen soxal Euh, dañ leen di woo ñu ñu ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan. mu mel ni nag norme yi nga xam ne nii ñoo ngi koy doxal fii ci Sénégal mën na yenn saa uute ak norme yi ñuy fekk ci yeneeni réew yi. Euh, réew yi euh, mën nañu wute ci wàllu seen gàncax ni mu bindoo mën nañu wute ci wàllu seen climat mën nañu wute ci wàllu profilu seen seen seen population seen capacité économique loolu moo tax organisme nationale di am. léegi bu ñu amee norme internationale bi day nekk référence boo xam ne ñëpp mën nañ ci sukkandiku après ku nekk xool nag li nga xam ne euh, moom mooy euh, maanaam say spécificité nga dugal ko ci. fii ci Sénégal am nañ rek dispositif bu xarañ ngir rek saytu produit yi nga xam ne ni dañ koy fekk ci marché bi rawatina yi nga xam ne ni nag dañ koy jëfandikoo mu jëm ci biir. autorisation bi nga xamné ni nak produit bi mën nako am du lo xamné ni rek day définitive lolo waral nak yensa nu ñuy am rek ay contrôle yo xamné ni duñ ko yeglé ci marché yi loole nak ay bànqaasu ministère du commerce euh, di ko def ngir rek gëna saytu produit yooyee nga xamné ni dañ koy fekk ci marché bi. jërëjëf mu Kalsum Sall. kii de Cheikh jóob la tudd doon doomu Sénégal def jaloore ca bitim réew jaloore ja mu def mooy concours arxuraan bi ñu doon amal ca Rwanda ngir xool itam ka ca dàq tari ak ka gën a jekku itam arxuraan ji tari wek mi moom dañ ne Cheikh jóob doomu Sénégal ji moom moo ko ci gën a jekku bi lu tolloog juróom fukki ak benn yi nga xam ne tànnoon nañ leen ngir ñu tarif dañ ne kat doomu Sénégal ji ñuy wax Cheikh Diop moom moo jël raay bi lu toll nag fan weeri réew lañ fa dajale woon kon loolu doon ndam loo xam ne itam ndamul doomu ndamul Sénégal Cheikh Diop doon doomu Sénégal moo jël itam daanaka ñi koy gën a kawe ak na yéen a jekku itam njàng meek nañ koy doxale foofee ca wàllu alxuraan ji ca réew mi doon réewum Rwanda ba tey kon loolu moo doon li fi rusoon ci àll xabaar dëppoo itam ak li nga xam ne nii moom la ñuy cërloon ci àll wax xabaar li ñuy def moo di di leen ñaan gaal mu ci géej gi xewoon